Of course, the story on that um, reads that GDC leader Mama Kande said the exiled Gambian dictator Yahya Jammeh should be allowed to return to his native country, the Gambia. Kande, who was speaking to the Star FM radio, said he sees no reason uh, why Jammeh shouldn't be re returned to the Gambia. Uh, Jammeh is a Gambian citizen. I have no problem with Jammeh returning to the Gambia. He should come back and he was born in this country, Kande remarked. Uh, the people he was working with are still in the country. Some of them had appeared before the TRRC and told, related their stories. Gametu too should come back and tell his side of the story to the TRRC, Kande added. Come. Um, Jammeh should come to the TRRC and tell his story so moom daal GDC leader bi Mama Kandeh lu mu nekk di wax moo nekk ne ah, moom dafa gëm ne like Jammeh dafa war a ñëwaat because moom fii la juddu fii moo nekk country am so moom gisul benn reason boo xam ne like keneen ah, ñene yi ñu doon liggéeya ñooñu ñëw nañ fii te dem nañ gis nañ ne gaa ñu ngi testify ah, si TRRC di lu tax moom du mun a ñëw so daf ci waroon a yokk sax ñu bari ñu ngi doon liggéey ak moom ñu ngi liggéey nguur gi fi nekk loolu sax bu ko ci yokkoon kenn mënu ko di te gis nañ ko. Mhm. loolu mooy firndeel li mu wax ne jàmme doomi réew mi la. te ñu bëri tamit ci réew mi seen gis-gis mooy comme moom ni mu ko waxee. Mhm. dellu sim ci biir mi waru garam la ndax fii la juddoo. Mhm. ñaareel bi mooy wax na li tax ñu samp TRRC bi mooy ñi dëggal. dëggal jéggale jéggalante ci li fi nekkoon ci ñaawteef ak ay métit kon bu fekkente ne bokk na ci moom doxalinu nguuram. ci ñaar fukki at ñaar. moom ci boppam luñ mun a segg segg ci ya doon am bu fekkee feeñul appewul ci tiyaaraasi bi ba tey mun naa xel mun naa tey xelu nit ñi ne am na luy lëndëm ci yëf yi moo tax tey bu dellu seen ci biir réew mi dina doon gën a yombal sax liggéeyu TRRC yi pour ñi xool naka la jàmm itam di ñëwee appia ci TRRC bi wax side of history ci situation yi nga xam ne dégg nañ ñu bëri liñ wax ci li nga xam ne moom moo nekk deram te nit ñi foog ñu understand ne doomi réew doomi réew rek la mën a doon mooy ku baax mooy ku bon muy ku def lu bon muy ku def lu baax ak lu mënta xew nit ñi mënuñoo dàkkal génnee ne jàmme nekkatul Gambien ak anyhow it is he was a former dictator la nit ñu understand nan ko waaye he is a citizen kon suñ demee ba déggee ci kilifa yu mel ni honorable ma Kandeh ñi gaaral seen kàddu ne dafa war a ñibbisi loi yi war a topp ci kawam ñu topp ci kawam ak ak yelleefu doomu aadama ñi xam ko ba ëllëg njiitu réew mu fi nekk tamit nga xam ne def lu bon du tax nga mën a daw ba raw danga fi nekk ak ñi nga def lu bon ñu xool la xamal la li doon def du yoon bu dee loi daf la war a jàpp mu jàpp teg la fi la war a teg ku nekk continuer ci ay soxlam loolu lañ gëm nii. am na solo torop ku nekk continuer soxlaam te jaame tamit comme noo ko waxee rek Gambien la um, dafa am right like any other Gambien here waaye anyway gars dañoo def seen liggéey TRRC bi and of course the justice uh, ministry ñu xool how best you know jaame but I think ne tamit ñu ngi moo nekka lu gën si réew mi so but he is a citizen loolu noonu kenn mënut koo lii te kenn mënut koo wax ne doo ñëw because and all that but man my expectation mooy situation yi li tax ñu génnee woon ko mooy security threat la ñu bari doon am at that situation xam nañ ne Jammeh was over control all the security mm-hmm. waaye gis nañu within these three security reform bi tax tey ñi déggee from eh, eh, eh, military official muy wane ne ñoom military yi they not to serve as police officers loolu yëpp dina la woon na the reform is somehow existing in the situation of what we're seeing ne jàmmee su ñëwee sax dina xam ne lam fi bàyyi woon ak li fi nekk uute na loolu moom yaakaar naa ne with the situation of the security reform that we're seeing ñu doon ragal ci moom lu bëri yaakaar nañ ne tey changes am na ci mm-hmm. xamuñ nag ëllëg waaye liñ jot a gis ci lañ mun a wax